Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici est plus fort que Je lui dis que moi, Barthélémy pour le restant de mes jours, je travaillerai à lui faire comprendre qu'il n'a pas le monopole de la bêtise. Voilà, pensez-vous par rapport à la demande de grâce? Est-ce que Khalifa est demandeur? Khalifa n'a jamais demandé, Khalifa n'a envoyé personne, Khalifa n'enverra personne et Khalifa n'a besoin de rien du tout. Parce que Khalifa sait très bien qu'il n'est pas en prison de par une quelconque infraction qu'il a eu à commettre. Khalifa Sall est conscient qu'il est en prison de par les ambitions qu'il nourrit pour ce pays. Et Khalifa Sall est conscient que les raisons qui l'ont conduit en prison sont aujourd'hui plus que d'actualité. Khalifa Sall n'a jamais renoncé, il ne renonce pas et ne renoncera jamais à ses ambitions de diriger et de servir le Sénégal. ci ci ginnaaw ko gisee yow. mooy 900 jours jaay doole 900 jours ñàkk gëm yàlla 900 jours ñàkk jom 900 jours ñàkk fulla 900 jours ñàkk fayda 900 jours naa féq 900 jours kàcc 900 jours toje suñu pétrole suñu gaz suñu weñ suñu zircon. 900 jours bu ngeen xam ne ni lii di justice su Sénégal ñu ngi kokkali askanu Sénégal 900 jours yu jéggi dayoo 900 jours yu métit moo tax xalifa sal ñu ne tey dañuy ñëw wane suñu cofeel ci xalifa Sall moo ñu indi fii di gërëm ñëpp di sant ñëpp. après discours président li mu wax ci RFI fële ci Biarritz est-ce que seen xel dal ndax euh, Khalifa 1000 jours yooyu du ko def kaso. Sénégal amoon na président Sénégal amatul président kon nag waa jooju nekkoon na euh, fële ci Biarritz daanaka nu ko waxee xale xelam lay fooye Khalifa Sall yónniwul kenn du mësoo yónni kenn soxlawul lenn nammul dara parce que yàlla bu mu gëm moom xam na lu ko yàlla tracel te xam na tamit lu koy xaar moo tax mu woote tey pour mën a dalal xelu askan wi mën a tàpp xol yi ne leen la woon fa woon ba woon na woon te jàppate bañ a bàyyi te incha allah lu sénégalais yi namm ci xalifa Sall lu yàlla namm ci Khalifa Sall lu sénégalais namm ci ëllëgu Sénégal lu yàlla namm ci ëllëku Sénégal yàlla dina ko def incha allah te Khalifa Sall dina ko fekkee incha allah. combat bi mooy combat wu askanu Sénégal. Khalifa Sall jàpp wante Sénégal 15 millions sénégalais ñoo fi yeewu. donc xeex bi sénégalais yi ñoo ko moom na sénégalais yi jóg te takku euh, pétrole bi santul xalifa santul sàll euh, gaz bi santul sàll wañ bi santul sal zircon bi santul sàll askanu Sénégal ko moom kon nag nañu jóg taxaw tem wane seen bopp te gëm ëllëgu Sénégal mooy taxaw tem information à sa juste valeur, c'est ici même, sunugal24.net